dégloo leen ma Sénégal góor ak jigéen ngeen ma baal gëjoon na ma waxe ci xaal tey nag dama gaañu ci xol déglooti leen ma Sénégal góor ak jigéen ngeen ma baal gëjoon na ma waxe ci xaal tey nag dama gaañu ci leen ma Sénégal góor ak jigéen ngeen ma baal gëjoon na ma waxe ci xaal tey nag dama gaañu inna lillahi jibna tay garab ga tudd xay bokoo dajeel mu naa la am na sampu ngir ñàkk ku du laamaat ku mel ni moom da dul ñawaat kookaata xon mi naat xéewali yomb xeli dal ngir moo raxas xay bi xol ci nun jafal sun lampi xol ba ñëpp boole seeni xol mu xëy na mees ku nii defal ku deeti jël gone yu di def ci ñoom mbiram yu ku damm duy ko bam ne muut ci alxuraan ñu lay sukkal gaaw siraatal mustaqim di jaamu yàlla min karim foo yendu yon say moroom min deefi jox seeni xol gi def na ñëpp jooy ba fuñ yaram wi dee na yawmal xiyaam bu doon lingeer aljuma ji wala di beer dinaa ko seeti dellu mbuur ñëwaat xabar ko waa njurul yow diina man dana la jaal sun waaju baax ga say xisaal te dellu jaal ko Sénégal ak jàkka yi mu daa dundal ba doon ku xam rabbul wara te sopp lool xayral wara ndax baaya may xawsul wara faw mu xam nu mu a fu gàmm xew mu seet wiiw du yóbbu wataam ceebe ki diw te gam du xam yu ndaw xaalis ba doon xel dëjul régions yi fépp lay fu diine woote lay dugal teraanga yi ku yàlla jël lu weesu di ne geesuwul xammee nitam yu démb ya ku ñëw mu laaj la mbokk ya te laaj la tooli démb ya Seex Saaliwu jotal ku ma jaar ci ay loxoom du gis lu weesu sun boroom di proy waay ci say moroom seex saalu xerte jëfal ku ma sa jaar ci ay yoxoom du gis weesu sun boroom di proy waay ci say moroom seex saalu jar di jëfal yow alxuraan danaa la jaal sa sopp bi di say xisaal bis bi mu def la naal xom ma xamal la ndaw ñi kii dëggal ku xas jubal nit ku gëlëm góob nga keroog ñeenti ngërëm yow booya boo wutak xalam di sant yàlla mi fal boobee ba tey baax a ngi jooy ngir say xisaal mi jar di jooy xam naa ko man wax le borom la gën ak njàpp ndal yërmande yow danaa la jaal ko xol ba Ibra Faal da daa yaram suturaal njabooti réew mi kenn desul moo daa dundal mbayum areen boole ko yaaf te neexa niin ko waa keneen day nañ ma seede gëstu jil ña say xi ban da seqaloon la boole saytu fonk leen lii tax mu def ku ne xamin xabaan ku leen deeti defal fam feetoon ci wàllu mbay suuf saa ngi jooy ba bis mi ku mel ni moom xamu fi tey lii tax nu am mettiitu xol am bay dafay suqali réew wàññi ko du jàmmi réew Seex Saala doon sun koomu réew lim njariñ yo dooda jël ñi ma amoon xam-xamu suuf ak jawwu ji ba noppi boof wayaf ba mel ni fépp suuf ba doo ko foog ngir nii mu mel lii mu teel sax ci mbay ndax ko sun borom bi may ci wàllu mbay te lu jox koy magam ba nii tol Seex Mustapha ma njëkk toog la tambulee lu mës a juub jébbal ko dellu toog di sant yàlla mi ñoral nii la dëkkee Cheikh Moustapha ba yàlla def Cheikh Moustapha nelaw galas di Moustapha mu far wayal sas wa bawul ba fallu xëy wàccub liggéey góor ak jigéen ku nekk jooy Seex Abdulaat jalaat liggéey ba ñi yoroon mu koy bayal ña di magam la jàppe baay di leen ñu def ko waay ñii rekk xam ak doomi baay dañ leen a mooñ ci rafetal koo xam ne kii ñàkk na baay sa baay moo di sa baay loo nësëroon démb ci baay def ko ci moom yàlla gëmul seex bàmba lii digle woon ki mag na jiitu mooy li gën ku sax ci lii dajeeg la gën firnda ji mooy borom jurul seex jiili xaadimu rasuul gërëm rakam ji dun ko suul jasaaka rabbi yooyu say jëf ki di na lay beral li say xisaada ci juma yu kenn yëgul jommal na ma ku weddi lii laaj ko si fekk na lépp wuutewul teraanga jooy na say xisaal ak tabe jooy na say xisaal naari na ñoom seen capital widd na boroom jurul jëf fi lool du gaaw a ñaar ngir yàlla waahidul qahaar tabax na kër yu taaru kaar yokkoy sëriñ daara ndimbal ay doomi xolam mu ay yëfam kuy xamle di na yaay say soxla la koy fajal sëriñ bi waq halal mu jëm ci lépp luy doxal Tuuba tayit li koy doxal moo diw sasam nan ko wéyal ayam gi ñaapaañ ma suur njaboot gi kenn du fandereer dongoom yi ñépp xami leer ku mel ni moom xamul ku ngeel wuuf na mbindeefi kenn desul jëriñ na mi loo yëgul defar ko neem yi kenn dëngul ñu duy murit yuy jëf ndigal lawet ba mel ni ab nawet moo di jikkoom yiñ ko nawee wax say jikkoom dafay kawe ki man ba mel ni jaaduwul naa wax lu jëm ci ak demam mu doon lu tiis ci amaatam réew mépp seen xol yi lëndëm xabaar ba siiw ñu samp xel sofoori taal wa tey buur xibla yi fépp di safoor moo xam Dakar mbaate Kajoor Tuubaa di riir kenn xëyul fii yawmi jumaatin la buur ngir wuy ji yàlla mii di buur sun dënn yëpp faf diriir cey adduna kanoo la jël adduna yaanu tegu tiis wu dootu dañ te duñ ko miis moom la dongo xame noos di leen yërëm di leen xamal seex saaliwi mbiram du jeex wax naa ba maa ngi bëgg lu seex Muusa ka dem jeex te jeex ku soobu wel bun gisatul boroom jurul doom jaadi baay ba wuutewul xam na këram ta gallewul doy na xalifa jokku jil koo xam ne kii boroom jurul moo doon sa féete yow dawal kitaabi moom la yàlla fal ci sun kanam mu nii defal Seex Saalihu mooy jëmmi sayxi Saalihu nun jàppenal la Saalihu xol yépp sedd xali dal li ñor sa ba moo la moo tax ba ñëpp jox la lu jëm ci di na ngay defar jox nan la ru yi wammatal bam ne coleet ke waxtu ndaw laaw ci yoonu jub di daw di bay di dun de def ku yiw ko mooñ ci ak dëggal fu ma am dayaal def ko juma ñu fay jilee si aljuma jiteem du ay appartement ngërëm la xam ne mooy halal tabax juma ca diggu mbuur def ca yàllal mu mel ni weer mu doon keneen ku gamba boor daf koy étage di korkoral

askan wu baax la soqi ko lislaam lu ñuy sukkandikoo mbàkkeeg bu soobee ngi sago danay borom gotoog njurul Seex Saaliw sol mbiram mu dem ja des bi yor mbiram daa man ganaaw man kanamam doo ma di ma koy beral wuuf na njabooti say xisaal di saytu lépp say xisaal te lii du xiili xaal wóor na borom bëtëg njurul gisuma man ku la fi gën gisuma yit ku la fi man waxewuma yit sama bakkan ku weddi lii danga xamul sëriñ bu wàcci ab xandam boobee la reere ay cëram moo lu fi jar der bu tilim yawmal xiyaam ñu lay Seex Bamba wax na bàyyi Seex Bamba jëf na bàyyi fii korom buy mu bàyyi fii di jëm fi neen amul ndimbal kon maa ngi dal di taggutoo te dellu jéema topputoo sama murit tey topputoo luy tax ëllëg duñ ma sonal maa ngi dagaan ci raaya toftal ca barke miim yaa bur yàlla may la aafiya te way neex la kon ma seen baay gën million yi baay ñu boole leen seen benn baay yu baax bawal li seeni gaay gën yooya baay ma koy béral seen baay gën million yi baay yu baax bawal seeni gaay ñu boole leen seen benn baay gën yooya baay ma koy béral bul fàtte sayxi murtada mam tudda sayxi murtada na yàlla may la yow rida boole ya muy ndimbal mam fàkke mbakke saalihu sa baay ba sayxi saalihu yonent yàlla saalihu ñee na ko ndax nuñ ko defal maam bu sa Mbàkke saalihu man tudde maami saalihu may ñaan ki barke saalihu